Pathé mbooj maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay Sabine. Pathé Mbodj nga déjà ñu wax si li nga xamante ni mooy giga meeting bu Yewwi Askan Wi nga xamante ni amal nañ ko ca parcelle Parcelles ni lan lañ mën a tirer ci rassemblement bu ni mel. ah mais jekk na rafet na ni mu jekkee woon eh, mu antuma eh, fële eh, Mbacké. maka euh, muy meeting comme li nit ñi yi defee woon meeting comme ni mu defee euh, woon Sédhiou nit ñi moom macha allah nit ñi moom euh, foo ko xoolee rek boor boo ko xoolee daa gis nit yu jéggi dayoo. est-ce que kon mën nañu wax ni lu ni mel dafay dëggal force bi nga xam ni Ousmane sonk am na ko ci réew mi te kenn mënu ko werante. enfin xam nga gis-gis dafa xaw a wuute. ndax jamono ji ñu toll moom. mooy comme jamono bi ñu nekkoon euh, euh, bi Wade deme deuxième tour mooy comme jamono bi ñu nekk woon bi Macky demee deuxième tour c'est-à-dire dafa am jamono yoo xamee ni moom foo sànni sa bët rek euh, dayo ji ëpp na ko jamono ji ñu nekk ak doxin yi xale yi tërin yi ñu tëree guddi gi ñu nekk yu yu bëccëgagul foo Eh, mbir mi ñor na ba pare. d'accord léegi euh, euh, Aminata toure ñu gis ko ci meeting wu Yewwi Askan Wi lu nu mel nekk mbetteel ci nit yu baree bare ku xamoon Aminata toure position bi mu fi occupé woon ak euh, Ousmane Sonko xeex bi nga xam ne moo amoon seen diggante tontonte bi euh, defante bi ba ci élection législative yu mujj yi uh, Aminata toure uh, jege Ousmane Sonko ban jàngat nga ci am. Euh, loolu buñ ko bu fekkee dafa xaw ëpp dayo si ñun rek day mel ni ñi doon ñi doon xeexan seen biir jongante premier tour mënuñu dajawaat deuxième tour mbirum politique moo mel noonu di leen wax li jarul dóore sa doom ku la xarab tey bu subaa moo kañ loolu mbirum politique la Aminata Touré tollu na foo xamee ni wéetaay na wéetaay boo ni euh, fu mu yaakaaree ni euh, am na ku xeex Macky Sall da doon muy Sonko muy keneen bu fekkee déggu si moom si moom loolu mooy mooy taxawaayam mm-hmm. euh, euh, jotee naag Macky dem na yoonam euh, Ablaye Wade jotee naag Senghor dem na yoonam Macky Sall jotee naag Ablaye dem na yoonam am na ñu fekki ñi àndoon ak Wade ñi àndoon ak Senghor fekki Ablaye Wade ñi àndoon ak Ablaye fekki Euh, Macky donc euh, loolu mbirum politique la daal. Hmm. mais ñu bëri dañ ko xaar woon ci Ousmane Sonko discours bi muy tenir les gens du du, du système ndaw yi ko topp di xaar si moom lu bees kon tey bu ñu gës gisee mu ànd ak ñoo ñoom Aminata Touré euh, waa système bi nga xam ni ñoom la doon xas est-ce que lu ni mel euh, Ousmane Sonko munu ci perdre ay points wala def siy gagner ay points. si sa xalaat waaw. te li ñu mën a war mën a seetlu teg si bët muy loo xam ne ni amul euh, ja euh, werante mooy li fi am 2012 bi Macky Sall di ñëw ndax bi ñu gisee ñenn ñi ni ñuy doxale ñu bàyyi leen fa dem jëli Macky Sall nga xam ne ni xëy na bu fekkoon ni bokk na si ëttu kuje gi euh, kenn duune woon mun naa si teg dërëm wala mun naa si teg ñaar dërëm li ñuy fàtte mooy kii wote xam na ku muy voteel deux mille vingt quatre bu jàmm rek amee xam na fu mu jëm xam na fu muy teg tànkam politiciens yi ñoo xamul yaakaar ne bu ñu defee lii dinañ am te fekk ni loolu xëy na euh, mooy lu leen di yàqal xoolal Moustapha Niass ak Ousmane Tanor bi ñu leen waxee juboo leen mun leen juboo la ku nekk dem wuti ñu ni di leen juboo ba si cëppaandaw ba ñu ni waaw xëy na bu fekkee ni dañu yaakaar ni ñun matuñu dinañ leen woon ñu wan leen li woon léegi ku defati noonu tey ku lu jéggi daye loo xam ne ni eh, ñëpp teg nañ seen bët bu boobaa ñun la fi ñukk ni yàq bu naqari rek dem wuti keneen xëy na sax ki ñuy woteel bokkagul si kujje politique yi xëy na dañuy xëy ba toog eh, élection jot rek kenn riire fële rek ni bon man tamit damay samp sama ndënd nit ñi woteel ko léegi euh, ban gis-gis nga am ci euh, manifestation yu Yewwi 15 ak 16 mars euh, 16 mars bi di tombeek ak euh, procès Sonko ak Mame Mbaye ban jàngal nga ci am. waa xam nga euh, Sonko boobu léegi mi ngi dox mi ngi dem di ñëw am ni mu àndal di woote nit ñi di ko fekke yaakaar nañ ni war nañu defaat ni ñuy def noonu def ko suba alxames. ak tey biñ koy defee tamit ah, ñoo eh, ñeneen ñoo ko bokk ñi ñuy jàkkaarlool ndax bu ñu defee dafay mel ni waa APR dañuy bàyyi ba jaan romb ñu topp si rëdd bi ndax ñoom tamit nee nañu jàpp nañu tey bëgg nañu euh, taxaw waaw loolu moom lu mën a am la waaye bu subaa bu Sénégal gépp génnee ñi fi nekk ak ñi fi nekkul Ousmane Sonko moom kenn mooy taxaw fi ma xam ne doon benn bu bu weesee bu bexekkee ni am na keneen koo xam ne yaakaar nañ ni tooñ na ko te kooku yóbbu ko si mbaxana den benn bu boobaa bu Sénégal yëpp génnee bu àddina yëpp génnee kenn mooy taxaw ci kanamu juge bi mooy Ousmane Sonko. Hmm. loolu moo am solo. Hmm. li yëpp li si des yëpp euh, xëy na euh, guddal jële la ndax boo nee euh, Mame Mbaye Niang na. Euh, Sabine Moro moo ko wax ñu la Sabine Moro ni la man kat musuma ko wax loolu amul te nga war a dem ñu àtte la xam nga ni boobu temps ngir mi kon euh, xaw na ëpp euh, ëpp na dayoo ndax bi ñuy weer wala ñu génn te moomoon ñaari fan bi mu amee ñaari fan bi mu njëkkee dem 2 février bi muy dem daf ni man fi ma jëm xam naa ko mhm. ba cëg laa fay dem soxlawu ma ku ma gunge mu génn dem dellu si mm. kenn waxu ko dara ñu renvoyé ko ba le 16 bu ñu demee ba tamit ñu renvoyé waat ko ba le 16 tey euh, suba waaw lan moo fi soppeeku 2 février ak 16 mars ba mu ni na 3 millions ñëw te bu njëkk bi daf ne bu ma loolu la ñu war a laajte daal. d'accord léegi riposte bi nga xam ni coalition Benno Bokk Yaakaar daf ko teg moom tamit si côté fas yéene euh, jàmmaarloo ak euh, waa Yewwi Askan Wi wala Ousmane Sonko noo ko gisee. non amul ku nekk dafa taxaw ni da ngay def xam nga bu fekkee ni Ousmane Sonko mun na def. war na nañu euh, nangu ni Yewwi Askan Wi tamit euh, Benno tamit war na mun a def. loolu mooy démocratie bu fekkee ne dañuy fësal Sonko bëgg a suufeel waa Benno dafay jaxasoo ku nekk formation nga mbootaay nga taxawal nga ni da ngay def yoon may na la nga def bërki démb am na ñu ni woon dañuy defaral Macky préfet ñu leen bu leen def bu ñu mënee xañ Macky may Ousmane Sonko ñu jox Ousmane Sonko ñu ni lu tax ñu jox waa euh, Benno dafay jaxasa daal loolu mooy jaxase xel yi waruñu jaxase xel yi bu fekkee ni politique la ñu nekk te ñu mën a euh, ku nekk mën a woote wane sa doole ku nekk mooy ni ko Abdou Diouf waxee woon rek jàkk jàngook ku mën a nodd na nodd waaye nag bu kenn tëj jàkk ji bu julli jotee d'accord élection présidentielle euh, bu 2024 PDS moom mi ngi préparé ñëw Karim Meïssa Wade est-ce que jàppoo ni même bu fekkente ne dina ñëw su ñëwee dina fekk ne c'est c'est trop tard en fait pour mu mën a euh, gagner xolu xolu sénégalais yi waaw. xam nga li am dëgg-dëgg. bu dul Ablaye Wade. mi nekkoon ci xolu sénégalais yi. keneen ki fi jaar yëpp. dañu ko jàpp noonu rek ngir faj mer. mille neuf cent deux mille bi ñuy fal Macky ñu ca jàkkaarloo woon waaw dafa fekk ñu mere euh, Moustapha Niass ak ak Tanor ndax bi ñu njëlbeen lañ leen wax yéen mënu leen juboo mm-hmm. na ku nekk dem wuti ñu ni di leen juboo parce que cëppaandaw ga ñu naan bennoo ak wala euh, bennoo ak kii biñ ko defee nag nit ñi nga xamee ni yaakaaroon ni ni xamuñu lu ñuy def ñu jël si keneen koo xamee ni dal na seen xel ku tuddee Macky Sall ñu woteel ko fi mu nekk Karim tamit mun na nekkee noonu tey jii yaa ngi wax Aminata Touré li mu def tey jii ñi ngi wax euh, Ousmane Sonko war a dem tribunal tey jii ñi ngi wax xëy na bu su cëppaandaw ba du mën a bokk mais xëy ku nekk rek am nga sa wërsëg. Euh, léegi ñu wax ci enjeu yi est-ce que élection présidentielle deux mille vingt quatre dafa am ay enjeu yu particulier par rapport ak yeneen élection présidentielle yi fi doon jaar. xam nga li bees rek mooy li euh, xaw a soppeeku ci xar kanamu Sénégal. ndax euh, bi ñu nekkee suñu tolof tolof nekk suñu maral nekk suñu xiif amuñu fenn fu ñu yaakaar dara. lu ñu mën a jàppale xëy na boobu nañu lu ñu mer mer mer mënoon nañu def élection si jàmm am nga deux mille euh, yaakaaroon nañ ni dana metti deux mille sept yaakaaroon nañ dina metti deux mille douze yaakaaroon nañ dina metti deux mille dix neuf yaakaaroon nañ dina metti ñu sëriñ ñi ñaan nañu euh, kër diine yi fu nekk ñaan nañu euh, ñi bonne volonté ñëpp ñaan nañu ngir jàmm am mooy deux mille mooy deux mille sept mooy deux mille douze mooy deux mille dix neuf xëy na bi yoon am na lu si yokku euh, affaire pétrole ak gaz xëy na loolu daal moo si moo si gan bi nga xamee ne dana tax bo ñuy topp naan bon fépp fu am pétrole wala am gaz rek am na torof torof Euh, dernière question Pathé Mbodj euh, est-ce que mën nañu xaar li fi xewoon 23 juin ci nguurug euh, Abdoulaye Wade amaat fii ci réew mi bu fekkente ni Macky dafa fas ne samp ndëndëm ci 2024 bi. xam nga bu bu sampee ak bu sampul yëpp li amoon 23 juin war na mun a am ndax euh, Macky war na mun a nekk war na war na mun a bañ a nekk loolu moom mi ngi si kanam bu boobaa. ni réew mi toll daal lañu ñu bi de vingt trois juin réew mi xëy na noonu la toll woon te amuñu woon Ousmane Sonko eh, ren jii xëy na euh, bu fekkee ne dana taxaw te eh, xelu nit ñëpp génn si Macky xëy na tamit xëy na loolu mun na amaat waaye loolu tamit si kanam la daal tax xam nga li euh, mun a wax lu leer mooy bu ñu amee lu ñu jàpp fi mu nekk jàppaguñu dara day ay mébét rek la ñu am ay xalaat la ñu am ni Macky dana bokk wala du bokk Ousmane dana bokk wala du bokk Karim dana bokk wala du bokk euh, euh, Khalifa dana bokk wala du bokk xam nga loolu rek fu mu nekk ku nekk sa xalaat nga am ak sa yéene bu yéene googu demee ba xaw a yóbbu nag suñu xel nag suñuy indil tolof tolof. Pathé Mbodj mi ngi lay jaajëfal ci sa disponibilité. ok jërëjëf euh, Sabine. voilà may fàttali ni Pathé Mbodj analyste politique nga merci beaucoup. politique nga merci beaucoup.